imam bu ñaan après baax ñaan gi moom yomb la liñ digle woon bi ñuy ubbi loolu rek lañu tëjee yonent bi daf ne sallallahu alayhi wa sallam kër yi ci gën mooy kër boo xam ne day fàttali borom dafa war a sant yàlla ak koy fàttali jaam yàlla ñaar yooyu nag ñu tuddee jaam ci noonu la meloon wala kitaabu rabbi kaana bi wa kuntu lahu wa lillaahi bi sitkan xasida boobu en tant que baytu boobu rek doyoon na ci biir Seex Ahmadu Bamba duñ ko jàngatee ko nit ñu baax la ñuy doon Ahmad mooy tur ñu nekk am ci àdduna bu ko dara amul yàlla ko si boppam sëdd ko yonentam boppam moom lépp dañu koy teg ci alquran moo ñu wax ne Seydina Isa moo yëpp daf ne ko mag kii ñëw mooy mujj ñëw Ahmad lay tudd waaw ah, man moo déggati ci àdduna moom lañ ko tuddee waaw ah, bu ko defee nag nga tuddee ko sa doom eh, bu màggee nga war koo yar ci nga xam moom la Ahmed moom meloon wax naa ne baax nga te ko wax ci hasard ni rek eh, moom maa ngi samp daara ji mu ngi taxaw kuréel mu mobilisé doomam yi ñu góor ak jigéen aja aja pour yi ñu tuddee yaaya bu toogoon fii di jàng alxuraan di ko jàng ci riwaayatu warsh gën a jafe da nga da nga yëm ci yàlla maa ko jàngal alxuraan xam naa ci dara euh, sonn na ci njaboot yi euh, mën naa joxe lépp moom ci déen bu ko defee loolu lañ ngay fàttaliwaat ko xale bi bu màggee nga fexe bu tolloon yor na la gën doom si yemee ci bàyyam yemoon rek sa fa la te mu doon jiitu kon ci diine en tout cas dafa war raw bàyyam bu ko defee yàlla na yàlla dimbale ci loolu ñu jàng faatiha jàng salaatu ala nabi addi yàlla ko kii ñu ko tuddee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 ربنا إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي ذات عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فكفنا في الناس تحوي إليكم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحانه وتعالى Mbergane Mbergane Gueye Mbergane bég na ma ne ko Mbergane monsieur Mbergane madame Mbergane a ah, la grand siyaare naa la sant yàlla ma ne ko monsieur Mbergane madame Mbergane waa yàlla leen yàlla defal jàmm macha allah nabu ko baax la macha allah gars yi comme ni ngeen ko gisee nabu def na sànce lii gars naan première attaque waaw ah, sa rakk la macha allah macha ah, yaay nabu bu ndaw la yaay nabu la ah waaw Fara Dieng yaay nabu yaay naboo ngi ah gis ngeen ko ay yaay nabu ay yaay nabu macha waaw macha allah kii yaay nabu daas donc gis ngeen ko ñu ngi fii ci kër ah, ñoom nabu daas ah macha allah imam imam on salminama macha allah jam tar gay moo ni alhamdulillah ok donc mu ngi noonu gars yi ah nabu nabu mu sañse ku sañse ti dee ko tàggu nga bu bi. Ah, bi xaar na de. nabu am na amul nabu amagul nabu am na. léegi finalement nag nabu ñëw na andi maam borom Touba. macha allah nabu xaar bi yàggoon na <laughs> nabu mais alhamdulilah. waaw alhamdulilah rek Kali alhamdulilah rek di sant sama borom kër bu baax. ah si Yaram Bergan di fëttali sama kóllëre ci moom. Mm-hmm. di profiter ci occasion di di di di di ak bu baax a baax a baax. bëgguma jaar nag ci lu jot a xew yëpp mais daal euh, maa ngi koy baalu ak bu baax di kontaan ci sama njëkke Fatou Berga nga xam ne lépp la baax jóge Mbàkke ba fii aw ma fayam di kontaan ci samay frère borom kër ay xaritam ay am bi jaamam xam nga ay employé am ñëpp déplacé wu ñëw ci bis bii nii kon man aw ma aw ma fayam daal aw ma seen fay waaw ku baax la tamit yaram Berga ku baax la bëri yërmande la waaw lii rek firnde na ko Mm. waaw vraiment. ndeysaan dafa dafa dafa dafa dafa waaw dafa dafa dafa sedd dafa fees. soxol fees que bés bi bés bu rëy tamit. waaw surtout tamit ma geesu gis sama sama sama sama sama famille. ndeysaan waaw parce que. kenn seetaanu la xam nga euh, dañ naan. Euh, euh, ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk sa borom. dëgg la te àdduna moom boo ci nekkee da ngay jàng. Mm-hmm. ndax mënu ma bokk famille bi ma bokk. Mm-hmm. am maam bu tudd Mamadou Diop def lu rëy Saalum ñëpp mm. xam ko mu nekk nitu mm. diine ah ma ma ma sàgganee ko daal waa mais tey dama kontaan su ma gisee gis samay samay bàjjan gis samay wumpaañ gis ñi ma yar mm. kon euh, damay am fierté waaw boo gisee tey macha allah ñoom ñëpp ñëw waaw amul depuis démb barki démb taayaama ñëpp ñëpp ñu ngi fi sonn ba bëgg dee di xool ñu gën a rafetee ñu rafetee waaw la famille d'abord mm-hmm. waaw mbokk dafa am solo waaw mbokk dafa am solo kontaan naa boo xewle woon gisoo mbokk da ngay tiit waaw da ngay ci waaw gis naa samay mbokk waa mais bi xew neex neex <laughs> mm. Moussa Mbergane ñëw nekk si bi am nga lu am nga lu neex tey <laughs> bu ngeen bu ngeen doolee mu gën a neex de. waaw macha allah basu nabu daas bi. ma ne ko basu nabu daas. na maam borom Touba ci mim réew. mbergan sagal jabaram. nee na bëgg ko rek te tax. ay bokkam jàpp ci. ndax nag bu mbergan moom dong te it nit mun naa ñetti waaye du du du yàq. kon macha law la tey nit yi commencé nag ci bisimilah rahmaani indi nag ndékki li noonu indi tànk njëkte indi benn bi indi laax bi. te xam ne yow rek ko ko ñor ci bés bi bés bi daal ko sant Ndergane rek ko ci naaw.